alhamdulilah alhamdulilah alhamdulilah. léegi sëriñ bu mel noonu tabarakallahu bi mu demee ba génn àddina euh, kan mooy waarisul Ibrahim yi ndax léeg-léeg dégg ci ab gox ku fay yëngatu. ne moo doon baay léeg-léeg beneen gox tam ñu dégg lu wax bu jooju ci beneen gox léegi kan moo doon baay xaqiqatan dëgg-dëgg ak euh, yan màndarga lañ koy xamee. awalan bu fekkee ne am na ko doon baay vraiment xaw ma ko maanaam diw mooy waarisul Ibrahim yi comme ni nga ko waxee xaw ma ko. Malben radio. xam naa ne daal maqaama dëgg bu mun di doon. su ka ko yanu toxoo dina am keneen ku ko yàlla yan xataan nem suñu nguur nguuraan yii rek ministre bu wàcc benn ministre toog fa nga toogoon président bu dem benn président ñoo toog fa nga toogoon dawlatul xaq itam xataan noonu la mel waaye nag kan la non seulement xaw ma ko mais utuma ko te itteeluma xam nga ci tax ca nubuwa yonent yàlla Muhammad dafa ne al ulamaau warasatu l ambiyaai wa inna al ambiyaa lam yuwarrisu dinaaran wala dirhaman aw dirhaman wala dinaaran wa innama warasu l ilma fa man axada bihi faqad axada bil xazil aw far nee na yonent yi ci aadama ba ci yonent yàlla Muhammad ulamaawul yi nga xam ne ñoo jàng diine bu dee ci ci suñ ñun ulamaawul ummat yi ñoo doon yonent yi te yonent yi liñ donnloo nit ñi bañ faatoo duut ay dërëm ak xaalis xam-xam lañ donnle ku ca jël rekk jël nga la gën a am solo kon nag am na benn degré wiraasa boobu taxul ngay laaj xatuwaan ndax képp ku nekk aalim ci umatu bi rek bokk nga ci ñi doon yonent yi te yonent ci la benn nit ku nekk soo jiitee am mbooloo ñuy fukki nit ñuy fukki million ñu ëpp ko koo joxoñ ne ko xaar ma ci mbooloo mi sama gannaaw boo ko tuddee xalifa juumo Malben Radio su fekkee ne taarix lañuy wax waaye bind na wasiya nos na ci ne yàllaay xalifaam ci mbooloom bi point mu ne nag doom ju baax ji te am xam-xam te xam yàlla te ma gën koo gërëm Alioune Cissé mooy sama xalifa ci sama taalibe yi ak suma doom yi gannaaw yàlla moom kon nag nga xam ne kon boobu ba léegi ku toog ku toog ci sajaada boobu boo ne mooy xalifa baay xam nga xalifa la ñuy wax waarisu man xaw ma ne wiraasa ak xilaafa seetlu ma ko woon lu may bi baay bindee ne ci jamonoy ku jamono ju njëkk ja bés bés bés bés ba ma laaj demee bind na Sukayri jënde ko li ma itteel duut xilaafa wante wiraasa kon nag ku toog ci sa palaasu baay ba sëriñ mu teg la fa xalifaam nga ku nekk ko xutbu bu yàlla wekkee keneen xutbaani ya kooku xalifa xutbu la waaye nag wax dëgg xaw ma ko amaa nag donn ko ci beneen fas ngi doon it moom kooku mun naa ci dalal xel ñëpp ba nga xam ne boo xamul ne fulaan moom mun nga ko tuddee yow ci ni nga bindeel waarisul Ibrahim yi itam lii may wax si moom dafa am solo am solo goo xam ne képp kuy taalibe bu sëriñ bu mag jiite woon jóge fa boo ko déggee jaroon na sax nga woote congrès maa ngi ko jàngee ci Abdourahman Suyuti ci téere bu mu bind ci tariqa chazuliya tayidul xaqiqatil aliya la ko tuddee ca biir dafa ne ibnu ataillahi sekandari nana su fi mag jógee xam ngeen mag waaw mag wala ku yàlla jiital ku bëgg yàlla pour eh, gannaawam képp koo xam ne maanaam ci sa taxawaay tax na ba am ñi ko xamoon duñ ko fàtte muy benn ñu ko xamutoon sax faf ko xam muy ñaar ci ñu ko doon nga bokk ma xam ne boobu daay yaatu na te kum neexoon sax bokkoo ci démb nga bokk ci tey waaw fexeel ba foo dem xeeñ baay na la wóor ne am nga ab cër ci wiraasa boobu ngay laaj laajte amaa nag kan mooy waaja ma joxoñ ko xam ko loolu xawma ko mais gëm naa ne taalibe yaa ngi fees ak xiw ndax yàlla moo mayoon yonent yàlla Muhammad yàlla mooy may moo may bàyyi ba benn bés mu ne ñu walim la wa ayni l yowma aynu muhammadin sara sirruhu fi haykali wa ruwaayi te te yonent yàlla Muhammad moom alayhi salaatu wassalaam yàlla lam ko mayoon lam doon yonent a tax ndax mooy xaatimul ambiyaa yi waaye nag nee na alxayru fiya wa fi ummati ila yawmi alqiyaamati comme lim indi moom du fi jóg alxayru lépp lu baax zahir ak baatin mi ngi ci man fiya Muhammad bin Abdullahi wa fi ummati ak sama xeet yu ila yawmi alqiyaamati kon nag bàyyi ne na wa inna ni bi sirril mu xaffaa laa yuhaddu binaa yi hadamtu lladi qad assasuuhu xamu ñu muy joxoñ la gaa doon fond fondé di ko yëkkati màbb naa ko te man ci mbootam yonent al Muhammad lima ma taxas tabax kenn du ko màbb kon nag vas alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah